assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi noo ngi sant yàlla borom bi tabaraka wa taala di julli ci yonentam ba alayhi wa sallam téere bii ngeen mu nekk samay loxo mi ngi tudd jaamiul bayaan fi mutashaabihaati alquraan téere la boo xam ni sunu menn mbokkum daara moo ko taalif moo ko dajale ci téere bi bu ñuy wax sëriñ Mbàkke Silla di jàngalekatu alquran fële ca Tuubaa moom fa yor daara di jàmbaar lool ci alquran nag yal na ko yàlla nangul te yàlla sàmm ko téere bi dafa làmboog baat yi nga xam ne dañoo nuroo ci biir alquranul karim masalan euh, subhanallah masalan ñu ni baatu maa ngi daje baatu wazannu wazannu nee na ñëw na juróom-ñaari yoon ci alquran mu wax fenn fu nekk fan la ñëw ci alquran lu ci mel ne que baatu wa in nee na ñëw na ñetti yoon ci alquran mu wax fa mu ñëw ak laaya jaak yu mel noonu loolu la téere bi làmboo ba mu ko dajalee nag ba def ko ci téere bi ca bu njëkk da ko bëggoon a génnee ngir may ko jullit ñi fi sabilillah waaye mu jafe woon lool ba man mii ak moom noo bokkoon def vidéo sàkk woon ndimbal ci jullit ñi ngir ñu mën a génnee téere ba alhamdulillah loola sotti woon na ba ñu génnee téere bi nag dañ ko joxaat jullit ñi fii sabilillah wax maanaam kenn laaju ci woon benn dërëm nit ñi intéressé wu ci lool wax dëgg yàlla ndax ñu bare bare jërëñu nañ ci léegi nag alhamdulillah sëriñ Mbàkke Sylla dajale waat na beneen boo xam ni comme téere bi la waaye juzu saani la léegi nag bii yoon dañoo bëgg a génne juzu awal bi ak juzu saani bi waaye nag du bokk ak bu njëkk ba bii yoon dañoo bëgg suñ ko génne ñaari téere yépp insha allahu taala dañu koy wecc ko ci biir jullit ñi lu tax ñu koy wecc ko te bu njëkk ba ñu defoon ko waqf bu njëkk ba dañ ko defoon waqfu téere yi jeex na tàkk alhamdulilah amoon nañ ci junni téere lépp jeex na nit ñi bëgg ko loolu waaye nag ñu xalaat ni saa buñ defaree téere rek laaj nit ñi ndimbal def ko waqf dañuy dema dem ba laaj yu bari yooyu mën naa indi ak yokkat ci biir nit ñi léegi ñu ne nag kon bii yoon gannaaw bu ñu laajee nu jàpp ci ba nu génnee juzul awal ak saani dañu koy wecc ko lan ca amee nag bu ëllëgee ñu génneewaat koy téere te duñ laaj kenn di ko joxaat jullit ñi insha allahu taala loolu moo sabab bii yoon ñu di ko wecc ko nu bëgg nag bii yoon bii képp ku mën a dugal loxoom ci liggéey bi insha allahu nga dugal ci sa loxo ngir ñu mën a génnee juzu awal bi ak juzu saani bi ngir man ko séddalewaat ci biir jullit ñi ndax njariñ la ci biir taalibay alquran yi njariñ la ci biir lislaam bi yépp wax dëgg am képp koo xam ne nag bëgg na cee dugal loxoom mën naa jokkoo sëriñ Mbàkke Sylla bi nga xam ne moo waajal téere bi ci numéro bi nga xam ne mi ngi daw ci suuf boobaak léegi numéro orange la boo xam ni am na Wave am na Orange Money te ku ko ci wooy dana ko jot dana la defal leeral yu gën a yaatu insha allahu taala bokki jullit bi lii nuy laaj dañ koy wax lu bari du ñu laaj mukk ngir def ci sunu biir kër wala ci sunu biiru bopp waaye day laaj ngir loo xam ne day jariñ bépp jullit incha allahu taala wala dañuy laaj ngir jullit bu loru wala bu gàllankoor wala yu ni mel kon day képp koo xam ne def na ci ñaqam dooleem loxoom baa xalaatam baa ñaanam nu ngi yaakaar ne borom bi tabaraka wa taala dana ko ci fay-fay gu kawe lool borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ci alquran naan inna almusaddiqina walmusaddiqat wa aqradu allaha qardan xasanan yudaaf lahum wa lahum ajrun karim nee na saraxekat yu góor yi ak yu jigéen yi ak ña nga xam ni dañuy lebal borom bi tabaaraka wa taala bor bu rafet nee na ñooñu ñépp borom bi dana leen ko fulandil masalan képp koo xam ni jaayante na génne benn téere wala mu jaayante génne ñaari téere wala ñett wala juróom wala lu mu won wala sax ku jaayante lépp kooku nag xam ni lebal na borom bi tabaraka wa taala bor rafet borom bi dana ko ko fëlandil te dana ko fay-fay bu kawe lool kon lii mooy wax ji wax ji mbokki jullit yi téere la boo xam ni ta taalifoon nañ ko bu yàgg muy sunu mbokk Serigne Mbacké Sylla ba ñu génne woon ko joxoon ko jullit ñi wax fa fi sabilillah bi yoon nag ñu bëgg a génneewaat juzu awal bi ak juzu saani bi waaye di sàkku ngir ñu dugal ci seen loxo incha allahu taala ngir ñu mën a génne ñaari téere yépp ndax dafa cher lool ndax jusul awal bi ngir ñu am ci junni téere faaw ñu def sept cent mille sa saani bi pour ñu am ci junni téere faaw ñu def sept cent mille ñaari yëpp muy un lu bari la moom sëñ Mbàkke Sylla amu ko eh, ñun ñii di ko defal vidéo bi amuñu ko moo tax ñu ne nañ def vidéo ngir tas ko ci biir jullit ñi incha allah ñort naa ne jullit ñi buñ ci jotee ba sëqatoo ko du yàgg dara ñu am téere yi tasaat ko ci biir daara yi alquran yi incha allahu taala bokki jullit yi yàlla nañu borom bi tabaraka wa taala boole nangul ñun ñëpp képp koo xam ni def na ci daraam yàlla ko borom bi nangoo ko loxo day joram di ko ko yaral waaye koo xam ni bëgg na ci def te amul sax di ci def ñaanit yàlla ko borom bi nangul moom ci boppam waaye ku mënut loolu yépp it boo partagé vidéo bi it yàlla na borom bi tabaraka wa taala def ko muy sa tabbi aljanna wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain wassalaamu wa rahmatullahi